ndax jëpp jëf ju ñu jëf ca bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja sëñ bee ko raw gën koo rafet la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju rëy fa barab ah, waaw jërëjëf ba tey li wolof Njaay di wax naan ku doon ku baax ku ne loo baax doyul kii ñu togal di soxna jaar ñu tudde ko soxna jaar bu sa borom poroxaan ko xool li xam ni maanaam li may waxat ne ah, loo def ren mu jig la bu déwénee nga yokk ko loolu kër sëñ Touba defe naa ni du fi guleet boo xoolee daaw bi woo te xel koom fii ñu toog tey ki nga xam ne mooy nga jëwriñu xelkoom muy doomu ajaratu Koura Ndiaye mu baax mi comme ni ko sama sa ni ko soxna si waxee. Baye Abdou Amar mi nga xamante ni si da doon bàyyi daara daan dimbali néew di doole yàlla dogal nag tey fii xam ne mooy xelkoom muy toolub Serigne Saliou Mbacke te Serigne Saliou dafa wax ni Serigne Touba de lépp def na ko waaye li ko ma li ko li nga xamante ni si daan xëy na jot ga sax moo ko maylu woon. moo doon liggéeyub tool bi Serigne Touba bi Serigne Saliou dé del ñëwee nag jamono doon Serigne Touba moom xel koom moom tool lekk la woote muy liggéey bi mu jël liggéey boobu nag ci jël ko teg ko ci loxob Serigne Cheikh Amar mi muy jëwriñu xel koom waaye nag ku ñëw fii ci kër gi tey xool li da nga xam ni Cheikh bàyyiwul dara ci liggéey bi Cheikh mi ngi togg di rey ay nag di rey ay gëléem ñëpp dajaloo fi. mu def ay waañ xelkom def ko fii ci këram gi kii ñu toogal nag muy jëwriñu waañ wi di jigéenam ñu bokk ndey ak baay moom la ñu toogal nii mu soxna jaara soxna jaara ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. di leen nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci yéen. waa Allo dakaar li nga wax dama koy dëggal rek. ndax dëggal bi mooy. jëwriñ bi ma nekk ci waañ bi moom. dama ciy dem ak fierté. di ci sant sama rakk ju baax jooju ñu di ko wax Cheikh Ndar muy Cheikh Amar di xel Xelkom yàlla def nag ñun nit buñ ne baax na nañ ko laaj mbokk ya ba pare ndax lu baax li muy def ci ay mbokkam lu ko jikkee ba pare sog a mu sog a law koom gi bañ ko taxawalee ba tey dëgg la de am na ndog ndog bu ko fi daloon jamono yële waaye noppaluwu ci sonnul tàyyil heure boo ñëwee taxaw rek mën la sëñ Touba amul moroom lépp ay baax te ni mu ko waxee noonu la amee ñu kontaan nag ci moom lool man dama koy xool yërëm ko ndax euh, xolu doomu ndey bi moo may jàpp léeg-léeg daal te xam ni Cheikh dafa xër sëñ Touba xër ci sëñ Saaliw loo wax rek mun sëñ Saaliw amul morom wala sëñ Touba amul moroom te dafa dëggu ci moom fi ñu taxaw nañ lu ne mbokk gi yërëm nañ ko Cheikh bul dem xel koom da sonn Cheikh nàngam mu ne damay dem de suñu waxee rek mu ne li ne sama xol bi nañ ma ko bàyyil damay dem xel kom dama tànk yi dinaa ko tegi xel kom ndax dama ne woon sama première génn ci sama feebar bi xel koom lay doon damay dem xel koom wër tool yi sant nit ñi gërëm leen ndax tamit nag sama feebar bi gis naa ñëpp niñ ma taxawoo waaw ñun daal mënuñu li dul di ko ñaanal rek ndax man daf may woo ba ma ñëw ne ma am yaa yaay jëwrinu waañ bi loola neex defal waaw yaa xam looy jënd yaa xam looy def yëpp yaa ngi sa loxo du ma xool du ma contrôler loolu nag ku mu doyul dara dootu a doy waaw te man lu ma lu ma jox rek doyloo naa ko. lu ma jox rek doy leen naa ko lépp nag ci koom waaye dañ ñi mbokk doomu ndeyu koy jur te gis nañ ñi boobu léegi yaa ngi ci waañ wi te waañ woo ci dara fépp lépp loo xam ne mi ngi yokk rek waañ wi rek yaa ngi ci soxna jaara Bousso wéy da nga taxaw taxawaayu soxna jaara Bousso gannaaw bi ñu ko defee ne jëwri nga koom mu ànd ko mbokkam yëpp senegal ñëpp ànd ak moom yéene ko ba bu wootee ñëpp ànd ak Cheikh Amar ban yëg-yëg nga am ci loolu kontaan lool kontaan lool damaa yëg si li ma njëkk laajte naka tool ya ñu ni tool yi de boo leen xefee doo leen fa fekk dara daanaka tool yi jeex na ma am ci mbégte boo xam ne daal mënu ko sax wax mbégte bi daal sama xol bi da cee sedd sedd sedd sedd rawatina nag dëkk bi gisuma ku jógul cantaakuñ waa kër sëñ Saliou Thioune ñëpp a ngi ci tool yi dégg nga Baye Fall yëpp a ngi ci tool yi ñëpp a takku bu kaar yéexee sax nit ñi jël oto yi euh, euh, demal seen bopp. Serigne moo ni mel Serigne Saliou moo ni woon sëñ Tuubaa ne woon lin xaadati ujooru wal masaaliwu bi tey iwal jës bi wa inni Saliou mooy Serigne Touba Serigne Cheikh mooy Serigne Saliou. xel koom bi mu ko wootee ba léegi bu bu at mi jotee rek ñëpp jóg kon Cheikh Amar daal gàcce ngaalaama xel koom jaaga gàcce ngaalaama Sénégal yoonu murit jullit yi ñëpp ngi lay ñaanal sa borom may la wér yokk sa kàttan yokk sa wërsëg te lépp loo xam def nga ko ren te at mu jot nga yokk ko yàlla nga ko yàgg def ñu ànd koog Dakar mi nga xamante si kii jiite loolu muy sa xarit di sa wëlëre di sa lépp waaye dafa ne dafa débloqué équipe bu Allo Dakar yëpp ni leen xel koom man ak Cheikh ñoo bokk Serigne Cheikh Saliou waaye sama xarit la lépp lu mu war rek nañ ko def kon gàcce ngaalama Allo Dakar gàcce ngaalama Soxna Jaara ñi ngi ñaanal Serigne Cheikh na yàlla yàlla guddal fanam ak képp ku ko yéene ci barkeb Serigne Touba jërë ngeen jëf. ndax jëpp jëf jëf. ca sëñ bi tax ka ko jëf jëf-jëf ja ko raw gën koo rafet la mu jëf looloo waral Cheikh Amar jëf-jëf ju fa barab bu mag ba nekk fa Tuubaa